Boulen faté abonné abonné ci une chaîne YouTube. Samsu TV jant bi à donner Activez activé cloche de notification Bobé, ngeen di seen ci seen écran. Samsu TV moi suis une télé. mooy suñu télé. Samsu TV ko seetaan. Samsu TV mooy suñu télé. Samsu TV mooy suñu télé. mooy suñu ko seetaan. bégee ba aljana ay waay di ko bégee waay ba aljana ana waa daara ji Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana ay ba aljana waa Shamsu TV la ñuy bégee ba aljana di ko bégee waay Euh, mbokki téléspectateur Shamsu TV noo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen baal wàq te di leen baal di ñaan yàlla ñu yàlla boole jéggal noo ngi jiital si nuyoo bi xalifa général bu Ceneba Baye Serigne Assane Seck di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal ko ci kanamu xadara bi noonu la ñu nuyoo xalifa généraux yëpp waaye tamit di nuyu kilifay aada yi commencé ko ci son excellence président de la république bu Sénégal monsieur Macky Sall. bu ko defee rek ñu jéggalu si dagg-dagg boobu ngeen gis euh, ñu ngi siy jéggalu waaye ki ñu taxawal nii euh, sëriñ daara la ci daara ji nga xam ne moo di daara imaam Ahmadou Dak Seck bu Thiès euh, moom moo ñu fas yéene dikkal ci programme bi tey naka lay demee lan la ñuy ubbee programme bi lan moo siy topp lan moo siy topp lan moo siy topp ba fan la yem incha allah bu ko defee ki nga xamante ni moo di imaam Oustaz Makhtar Diop moom moo ñu siy allah ñu. wàcce suñu kàddu rek eh, jox micro bi imam Makhtar bu rek mu ñëw ñun ci programme incha allah rabbi dinañ yenn xale yoo xam ñoo ngi leen di gunge ñoo leen di gunge mooy xale yi nga xam ne wàcc nan alxuraan ñooy gunge xale yi nga xam ne ñoo mokkal bu xale yooyu pare après dinañ fi def ay discours yoo xam ne ci arabe la ci français ci anglais yooyu yëpp dinañ ko wane leen li nga xam ne ñoo ngi koy jàngale ci biir daara ji waaye tamit yenn ci kilifa yi nga xam ne dinañ fi teew la mel ni monsieur le maire waa daaray Koki ak xalifa général di Thiénaba ñin fi yebal ñu sooba yàlla dinañ jox kàddu ak yenn ci parents d'élèves mooy xam association parents d'élèves ak sortant yi nga xam ne ñoo ñoo ci daara ji waaye tamit dinañ ci wane lenn ci li nga xam ne mooy armation bi nga xam ne ñoo ngi koy jàng si biir daara ji muy taekwondo bi animation culturelle bi nga xam tamit da koy def si biir daara ji parce que xale yi dañ leen di ci wàllu culturel parce que ñu am yaram mën a dëgër yooyu yëpp incha allah rabbi yooyu lañ ci wane buñ paree kaa ngi am am na ku ñuy seetaan xamul daara ji réalité yi waaye tamit xamul daara ji maanaam seen jàng ak jàngale waaye képp ku ñu seetaan mu jeex di nga am envie indi sa sa doom maanaam tey soo doon expliquer nit ñi ku bëgg a indi sa doom tey réalité yi tan lan la exact waaw condition yi nga xam ni moom lay moom lay daara ji jëlee xale bi ci njëkk mooy day doon musulman bi ci njëkk lay doon musulman bi si topp tamit am juróom ñaari at du romb fukki at benn bu dee jigéen bu dee fukki at ñaar bu dee góor fukki at ak benn bu dee jigéen du ko romb. li gën a ndaw juróom-ñaari at mooy li gën a ndaw. daara ji day jël góor day jël jigéen xam naa yeneen information yi ku ko bëgg da ngay woote ci daara ji du ñàkk dinañ ko lal mooy numéro boobu ñuy lal ci suuf. mooy numéro boobu mooy numéro daara ji boo si wootee dina la jox yeneen information yoo xam ne dina gën a complète voilà. jërëjëf oustaz euh, naka Diop Matar Diop. bu ko defee rek dañuy teg foofu suñu baaraam ñu dugg si programme bi incha yow mi ñuy topp ci Shamsu TV waaye ni ko daan waxee rek abonné ci Shamsu TV ndax loolu mooy suñu doole tey taw loolu mooy sa doole abonné ngir lenn bañ laa raw bu defee rek dañuy teg foofu suñu euh, baaraam dugg ak yéen si programme bi incha حامل القرآن وعلى منزل قارئه من عند الرحمن العلا في الدارين حامل القرآن وعلى منزل قارئه من عند الرحمن ويسر أنتم يا حفاظ شرف القرآن أهلا في حفلات تفتخر بكم سرتم أنتم يا حفاظ شرف للقرآن أهلا بي في حفلات تفتخر بكم حملات كتاب الله مرحبا بكم أهلا بكم يا حفاظ يا أهل القرآن حملات كتاب الله مرحبا بكم حفاظ القرآن حقا أنتم أهل الله خير لكم حفاظ القرآن حقا أنتم الله ما لنا غير التبجيل والتكرم لكم نحن في طاعتكم من أجل القرآن فإمام مسجد غدا يسجد منكم القرآن فإمام المسجد غدا يستخرج منكم أهلا بكم يا حفاظ يا أهل القرآن حملة كتاب الله مرحبا بكم أهلا بكم يا حفاظ يا أهل القرآن على كتاب آه، حفاظ القرآن حقا أنتم أهل الله يستخرج منكم لو نحن في ضاعتكم أجل القرآن فإمام المسجد غدا يستخرج منكم أهلا بكم يا حفاظ يا أهل القرآن حمل بالله مرحبا بكم كتاب الله مرحبا بكم هذا القرآن حقا أنتم أهل الله ما لنا غير التبديل والتكريم لكم حفاظ القرآن حقا أنتم أهل الله ما لنا غير التبديل والتكريم لكم نحن في طاعتكم من أجل القرآن فإمام المسجد غدا يستخرج منكم دوما نحن عدكم من أجل القرآن فإمام المسجد غدا يستخرج منكم كتاب الله مرحبا بكم أهلا بكم فاضوا يا أهل القرآن حملة كتاب الله سيدنا الشيخ كبي أك سخنة تتا سلا بكلين تسانت سين بروم سين دوم جباي آلي كبي مكنا القرآن سيدنا جبريل سيك أك سخنة دايدا bég te kontaan seen doom ja Baye Khalifa Seck mokkal na alquran Serigne Alioune Badara Ndiaye ak Soxna Awa Niang Ndiaye bég te santaat seen boroom seen doom ja Pape Mor Ndiaye mokkal na alquran Serigne Sang Diané ak Soxna Kaba Niang bég te sant seen boroom seen doom ja Abdoulaye Diané mokkal na alquran Serigne Abdou Aziz Niang ak Soxna nday Mbeng bég leen te sant seen boroom seen doom ja soxna Astou Niang mokkal na alquran daam jaw ak soxna Kumba Jallo bég leen sant seen boroom seen doom ja Serigne Ndiasse Thiaw mokkal na alquran Gora Seck ak soxna Khady Seck bég leen sant seen boroom seen doom ja Moussa Seck mokkal na alquran monsieur le maire Ibrahima Ndiaye bàyyi ko ba Bamba ak soxna Jama Seck bég leen te sant seen borom seen doom ja Cheikh Tidiane Ndiaye mokkal na alquran Serigne Baye Alpha Fall ak Soxna Aram Taal bég leen te kontaan seen doom ja Mouhamad Fall mokkal na alquran Serigne Ndonga ak Soxna Fatou Diop di ñu am taxawaay ci daara ji seen dooleeg seen wërsëg ko bég sant seen borom seen doom ja Mareetu Gueye mokkal na alquran Serigne As Ngom Soxna Xaar Gueye bég leen sant yàlla seen doom ja Fallou Ngom mokkal na alquran Serigne Khalifa Serigne Khalifa Gueye ak soxna Ramata Seck sant seen borom seen doom ja doom ja xolu bu ma seen doom mokkal na alquran Alpha Sarr ak soxna Mati Sarr bëgg sant yàlla seen doom ja maam Babacar Sarr maam Awa Diop bëgg leen te sant yàlla seen doom ja Mouhamad Diagne mokkal na alquran Oustaz Cheikh Bourgo Seynabu Safiyatu Saar nga xamante ni seen doom ja sant leen yàlla te gërëm ko aji Zeynabu Borgo mokk la alquran Serigne Gallay Thiaw ak Soxna Aram Seck bëgg leen te sant seen borom seen doom ja jamal caw mokk la alquran Allahu akbar Serigne Samba Diouf ak Soxna Adama Kayre bëgg leen te sant yàlla sant seen borom seen doom ja Modou Diouf mokk la alquran Serigne Mokhtar Ndiaye ak Soxna Rokhaya Ndiaye. bëgg leen te sant seen borom seen doom ja maam Faama Ndiaye mokkal na alquran El Hadj Modou Diagne ak soxna isa soxna Issa Diop bëgg leen te sant seen borom seen doom ja Mouhamad Diagne mokkal na alquran Serigne Serigne Adama Seck ak soxna Tuuti Seck bëgg leen te sant yàlla waaye Serigne a Seck bëggal te sant yàlla kala sa mbokk ma woon muy Serigne a Seck mokkal na alquran Serigne Modou Ngom soxna maam Jaara Ngom. na ngeen bégte sant seen borom seen doom ja fàllu nga mokkal na alquran Serigne Amadou Sow ak Soxna Jeynaba Sow bég leen sant yàlla seen doom ja Abdoulaye Sow mokkal na alquran Serigne Abdoulahi Seck ak Soxna Fatou Seck bég leen sant yàlla seen doom ja Baye Mouri Seck mokkal na alquran Pape Mbaye Ndiaye ak Soxna Astou Ndiaye bég leen te sant yàlla seen doom ja Mortala Ndiaye mokkal na alquran Serigne Ibrahima Diop ak Soxna Aïchatou Fall bég leen te sant yàlla yal ngeen fekke teraanga yee seen doom di ajaay Ndeye Marie Diop mokkal na alquran Serigne Lamine Samb ak Soxna Astakan bég leen te sant yàlla Mouhamad Samb mokkal na alquran képp ku am ku mokkal alquran takbir allahu akbar bi dégg ko fu waay nekk allahu akbar allahu akbar allahu ngi waaj a jàng hymne national ngir terale ko réew mi terale ko dëkk bi wane ni suñu ndaw ñi ñoo nekk ci dëkk bi te lu mu yàgg-yàgg ñi ñoo Alxuraan waaye dëkk bi nga xamante ni mooy dëkku Maam Baye Niass góor ga nga waxoo xawxoon ni saral Mustafa laylan wa waafa bi xamsatin arajna bihi wayol fatu lil mutaqaddimi góor gi nga xamante ni mooy maam Cheikh Ahmad Bamba góor gi nga xamante ni moo wax ni lam yabdu mislul Mustafa Muhammad sirran wa ba xasida ba jeex góor gi nga xamante ni mooy maam Cheikh Seydil Haaji Malick góor googu waxoon ni walaysa li amalun alqaaka ya amali si wal mahabbati wa taadimi wa sal xamante ni mooy suñu parrain d'honneur di borom daara ji di góor gi nga xamante ni moo demoon masar mi bëggeen Sadio Samb di nga xamante ni mooy maam Ahmadou Ndak Seck ñu tudde ko ji ndawi dem ba tax taxaw nii fas yéene tagg li nga xamante ni mooy dëkk bi kon ñu déglu Baye Souleymane Seck di sët ci moom mu tagg li nga xamante ni mooy dëkk bi ñu jàll hymne national bi yéen ñépp ngeen jóg taxaw màggal ko Amém. les ténèbres, soleil sur notre terre, soleil sur notre espoir. Debout, frère, oh, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur vert, épaule, mais plus que frère, au Sénégal et debout. ini sola mer ele sursa ini sola sed e la forza Africa mer Allah Akbar Allah mbokk lii taaru na lii rafet na lii mucc na ayib ndeysaan ndeysaan ndeysaan maaj bu daw yaram maaj bu neex maaj bu yëngu maaj boo xamante ni bi euh, remarque bi ma ci def da ngay gis xale yi dañ koy def avec amour dañ koy def ak bëgg waaye dañ koy def ak yëg-yëg waaye da ngay gis que ni lii lu ñu bëgg la lii lu ñu répété la waaye tamit euh, boo gisee ni mu mokkee ak niñ ko maîtriser mooy bëgg nañ ko xam nga boo bu fekkee da bëgg liñ lay jàngal pour mu dugg si euh, euh, ci yow dafa dafa yomb loolu lañu ñu seetlu ci ci xale yi waaye tamit da ngay gis seen jur yi saan ni ñuy yëngoo ni ñuy ànd xale yi ci ci ci maaj bi ñuy def moo xam ñu góor ñi moo xam ñu jigéen ñi waaye da ngay gis soppee alxuraan yi tam ñoom itam ndeysaan ni ñuy amee mbégte ni ñuy amee contacté ni ñuy amee contacté Euh, ndax euh, nga gis koo ci gis xar kanamam ndeysaan euh, li nga ci gis mooy mbégte ak kontaante ak gën a bëgg alxuraan gën a soppaat daara yi kon ñu jaajëfalaat bu baax a baax daara imam Ahmadou Ndack sekk bi nga xamante ne moo nekk fii ci Thiès jiite ko ki nga xamante ne moo di oustaz Amadou Makhtar Diop ak ñu ngi ko bokkal ñëpp mbokk ñu wàcc suñ kàddu nag dugg ci tari bi incha allah waaye balaa boobu am na ay kilifa yu fi yëkkatu kàddu ñu teewlu leen. العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بقي سلام عليكم ورحمة الله جناو بنيو سنتي يالله سنو بروم منيو دفل توفيق نيو دجوات برب تدبي دي برب القرآن دي برب الإسلام di barab bo xamni tay ji dañ fe wara kañ yëkkati fi baatu ci suñu borom muy mbekté mo xamni julit ñépp ko bok ndax fep fu mu amoon fu dul fu abdulit nek da koy bëggé kon ñun ñi dëkk Cité baax bu ñu yàlla défalé tawfiq ñuy dalal gan ñi bu ñu yàlla défalé ñuy dalal gan ñi kon day melni suñu yëfi bop la kon ku ñëw rek ñun nga ñëwal alhamdulilahi rabbil alamin di baamtu rek lañu daan wax ci daara ji ñu baree bari dañuy jooy ay dëkkandoo waaye ñun buñ mënoon a am juróom ba fukki dëkkandoo yu mel ni oustaz ak njabootam dañu koy sante yàlla bu baax a baax a baax a baax moo xam ña ca daara ja la moo xam ñi ngay dajeel ci biti koo ci mën a gisit danga naan siiwa bokk ak moom danga naan siiwa jege ko kon lool yi tawfiixu suñu borom la kon ñuy wax gan ñi nga xam ni ñoo ñëw ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ñëw ngeen ci seen kër ñëw ngeen ci seeni mbokk ñu ubbi suñuy bunt ak suñuy ëtt yaatal leen ngir lan ngir mbég mii nga xam ni moom lañu bokk te mënuñu koo seddoo maa ngi koy wax démb rekk ci jumaa ji di wax waa koñ bi ni leen nañu teel a génn xam naa ñu bari ñu ngi dégg kàddu gi ndax ne woon naa leen sept heures demi lay tàmbali te am na ci ñu bari daaw dañoo ñëw di ma wax ni ma yëf yi kat man damaa tardé fekkewu ma lu bari man leen nag daa am ay waxtu yuñ koy def bu ñu tàmbalee sept heures et demi bu tisbaar jotee dañuy ñaan kon nit ñi ngi leen di soññiwaat di leen wax ni nit du woo ay gan ba pare gan ña di la jiitu ca barab ba te gan ñaa ngi ñiy ñëw wax dëgg yàlla toog di xaar waa koñ bi kon ñi ngi leen di soññiwaat li leen wax ni seen liggéey bopp bi tàmbali na seen li ngeen doon liggéey ba mu sotti ñu war koo gaaral ña nga xam ni ñoo amoon kóolute dénkaane seeni njaboot nopp ñi ngi ci kon ñi ngi leen di soññi li ci des it mooy ñuy dalal xel kilifa yi di leen wax ni daal moom ñun suñu xel dal na bu baax a baax ci nekk gi ñu nekk ak oustaz oustaz damay wax saa su ne ni mbokk yi ni leen boo moytuwul sax nit mën naa jële ci moom tuuma wala ak tooñ tooñaange ndax mbaaxam foo ko natt ëpp na ko te muy nit ku mënoon a diis mënoon a yëkkati boppam loolu moom waa koñ bee ma ko gën a xam ndax léeg-léeg ma poñe ko ni ko da ngay jiite mu jiite si waaye dañuy yàkkamti lool ci moom loolu ngir xam-xam bi ngir yar bi ngir teggin yi nga xam ni nit ku mënoon a yëkkatiku la ku waroon a mën a diisal boppam la waaye foo ko fekk day suufeel boppam foo ko fekk day wàcce boppam di joxe ab dañuy wax ni nag ab cër moom ku ko amul doo ko mën a joxe kon it oustaz ñi ngi lay sant bu baax a baax yow yaag mbokk yi nga xam ni yéen a ànd ak li moom liggéey bi di ñaanal suñu doom yi nga xam ni ñoom la suñu borom dogal tey jii ñu mokkal di leen fàttali rek la sëñ Tuubaa waxoon ca waxay suma yu bas mi lu fata boobee ne nañu sant yàlla bu baax a baax ndax daa waxoon ni bu gone gi jàngee baasin mimara bu jàngee rek baasin mi mara yàlla musal na ay waajuram ci sawara musal sëriñ ba ca sawara musal donga ba ca sawara waa tey jii nag ñu indil leen ay fóore ni ko sëñ bi waxe léegi oustaz du yow kese bari na ñoo xam ne bu leen oustaz taala ni woon jàngal fu la neex ci alquran yow nee nga fan la xeeg naa si waaye ñu mel ni moom moom ci lixlaas la ñuy yam ndax moo gën a woyof moo gën a jàppandi kon dañuy sant yàlla bu baax a baax bi ñu amee ay gone ñuy ay xale yu ndaw oustaz ak ñi mu àndal fexe fexe ba alcorane dem ci ñom ta mokal alcorane nak du lo xamni ñëpp ko mëna def ñu bàyyi xel bax bax toujours dama ci joxe misal oustaz di wax ni ba may nekk xale di ànd ak sama ñi man may dem ci daara ji ñi des dem jàngi tubaab ñooñu silaabeer lañ daan jàng silaabeer di téré bu tuti bu ndaw waye bobu ba légui mosoo dégg ku ko mokkal kon amna suñu borom def ci alcorane amna secret bu yàlla def ci alcorane kon bu fekkee ni boobu ba léegi ñu ngi koy mokkal teg ko ci nag wa inna eh, nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizuun kon ku yàlla defal tawfiix jooju ba sa doom mën a mokkal alxuraan na nga sant yàlla waaye na nga sant bu baax a baax it ka taxaw sa doom ba mu mën a mokkal alxuraan ndax nit bëgg na ko mënu koo am nit dox na ci ay jéego yu baree bari mënu koo am kon daal ñuy sant bu baax oustaz di wax gan ñi leen ahlan wa sahlan ñëw ngeen seen kër ñëw ngeen ci seenu ëtt fi moy quartier bu wess bi nga xamni ñong ko tudde mam abdul Aziz yal na yàlla yok ay leer yal na yàlla jël barkeb alxuraan sëmbaltal ko ca famu nek nekk ca barzax bi jahi rasul sallallahu salaa wasallam wa axiru dawana anil hamdulillahi bi alamin wa salamu alaykum wa rahmatullah min cheytaan rajim bismillahi rahmani rahim mbokk yi alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp tey jéggalu baax a baax a baax nag kàddu yi ci kanamu kilifa yi ginnaaw bañu ñu dalalee suñu waajur yi di leen sant di leen gërëm te di leen tatagal di leen ñaanal jàmm te di ko ñaanal suñ bopp di ko ñaanal suñ rakk yi nga xamante ni ñoom ñoo waral bis bi tey ñuy sant bu baax a baax baax suñu waajur yi nga xamante ñoom ñoo ñu tànnaloon li gën te mooy alquranul karim suñu waajur yi nga xamante ni ñoom ñoo ñu boole woon ak ki gën muy kii jàngale alquranul karim di Oustaz Ahmad Muxtaar Diop di sant ñi teew ci jotaay bi yépp di wax nag ci kàddu yi ñi nga xamante ni ñoom ñoo génne ci daara ji ñu tuddee ko majmuwaat sabab xawla alquran muy kuréel gi nga xamante ni ñoom ñoo génn ci daara ji te jaaroon ci loxoy yi Ahmad Diop di ko sant bu baax a baax a baax te di ko gërëm ngir yar bi def ci ñun xam-xam bi def ci ñun ak defar gi ñu defar ba ñu ba société bi man ñoo jëfandikoo te kenn du ñu ŋàññi ci lenn kenn du ñu jamit ci benn côté loolu ñu ngi ciy sant bu baax a baax a baax waaye di ko sant itam ci woyefam ak jàppandalam ak mbaaxam ak mën a defar nitam ñu ngi ko ciy sant bu baax a baax a baax a baax lii may wax nag du samay kàddu waaye kàddu mbooloo mi yépp la amaana dañ ma tee wóolu jiital ma ci rek waaye kenn ku ci nekk ci ñoom bu fi toogoon def wax fi lu ëpp li ma fi wax wala mu def fi lu ëpp li ma fi def waa ñun nag dañuy sant di gërëm tey ñaanal oustaz ndax dañ fay nekkandoo moom démb nekkandoo fekk moom barki démb ba pare fekk tey nag moo tax ñu ñëw tey gunge suñuy rakk ñun nag buñ demee ba génn ci daara ji takkuwaat ñëw ci daara ji ngir alxuraan moo tax waaye ngir taxaw bu ñu oustaz taxaw woon moom moo ko waral taxaw bu ñu oustaz taxaw woon ak taxaw bu ñu suñu waajur taxaw woon moom moo ko waral di dalal suñu waajur Serigne Mokhtar Seck di ko sant di ko gërëm ndax bi ñuy ñëw fii ci ay loxoom lañu jaaroon te boobee ba tey bàyyiwuñu ci daara ak ci xam-xam ak ci alxuraanu karim rek lañuy ñuy doxal la ñuy ñun kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu majmuwa bi di sant Oustaz Talla mi nga xamante ni moom moo jiite njàngale mu kaw yi ci alxuraan ji ak ci xale yi di leen xamal ni nag parents yi bis bi ñun ñoo ko moom waaye tamit suñuy rakk ñoom ñoo ko moom ñun dañ fee teewul ngir gunge suñuy rakk yéen ngeen teew fi ngir gunge seeni doom ñu leen xamal ni daara ji dafa am liggéey bu am solo boo xamante ni daf koy def ci nit mooy dina defar nit ki ba mu mën a jariñ boppam te loolu jafe la dina defar nit ki ba mu mën a jariñ ay waajuram te loolu it lu jafe la waaye dina defar nit ki ba mu mën a defar société loolu ñu gën koo bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax daara ji mi ngi jàngale alquranul karim gu tedd alquran ju set ñoo ngi yar xale yi ci diine di leen yar ci lislaam at di leen xamal fi jamono toll ba nga xamante ni jamono bu ñu paree ba génn ci daara ji rek fu leen fu ñu fekk jamono rek dañuy ñëw ànd ak moom ci diine waaye ànd ak moom ci yar waaye ànd ak moom ci ngor daara nag lam doon liggéey démb ak bërki démb ba léegi mu ngi koy liggéey rawatina nag daara ji kon nag parent yi ñu gën a bàyyi xel daara ji gën a gën a bàyyi xel oustaz waaye gën a bàyyi xel ndongo yi di di dolli tey dolli sama bopp rek mooy luñ gën a jàpp daara ji doyul luñ gën a bàyyi xel daara ji doyul waaye itam luñ gën a jàppale doyul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 Shamsu TV mooy suñu télé Shamsu TV mooy suñu télé dégg ko seetaan Shamsu TV mooy suñu télé Shamsu TV mooy suñu télé dégg ko seetaan Shamsu TV mooy ba ay waay di ko bege waay ba waa daara ji Shamsu TV la ñuy bege ba la ñuy di ko bege waay aljana